Euh, euh, mbébét mu nekkoon euh, mu takk ko soxna moom kooku di Khoudia Fall indi ko nag ci biir këram fi daagu ndax ni mu ko doon waxee nee na moom këram gi gisoon na ne li fa manqué woon rek mooy jeeg di fa daagu kon nag dama leen di rek nuyu ñoom monsieur et madame Fall di leen wax rek wax dëgg yàlla félicitations. te Khoudia waxoon naka fi ma ne ko dinañu xool fu wànnent di mujjee ki gëtam mu ne wér péng lay def tey moom bële bi wane na wër na peng xuja macha allah seet bi bul catu waaw du ma catu cat dafa sew <laughs> dafa gaaw te sew hmm. seetoo seet alhamdulilah ndeysaan dafa kontaan ba mënul wax parce que lii lan doon ñaan yàlla nag boo nee benn foog nga ni ñaar te yàlla nañ ni fukk ba romb ko macha allah kontaan naa sama chéri sa chéri ko <laughs> monsieur Fall waaw maa ngi maa ngi lay fay koddu mhm. balaa euh, maa nuyu sama jabar nag damay nuyu sama kilifa ba pare. waaw ayca <laughs> ne. ndax nag ndax nag làqatu woon naa seeti ko. Ah. waa ci lum xamut làqatu woon naa seeti ko. kon jeex na waa ci bi may dugg dugg bi may dugg jël soxna. Mm. demoon naa déglu ay conseil am. waaw mu teg ma fii ne ma jaareel fii doxalee ko nii doxalee ko nii kon bu ñu egsee fii ci plateau bi bu ñu fekk fi suñu kilifa dama koy nuyu ba pare. Mm-hmm. di nuyu tamit euh, soxna si. Mm-hmm. Euh, di leen di leen dalal bu baax fii. Mhm. di leen wax ne ñun daal ñu ngi ci seen ginnaaw. Mhm. benn yéen a nu jiitu ci àdduna jiitu nu ci sey kon ñun de ñu ngi topp ci seen ginnaaw di leen déglu. fu mhm. ngeen nañu jaar leen fi rek ñu jaar fa. jeex na mooy tëjee nag di nuyoo di nuyu sama soxna si nga xam ne. sa soxna si ah, macha allah. Eh, ba ñu àndee ba tey dara <laughs> ñaaw dara ñaawut. yàlla bu <laughs> dara ñaaw fii lu ñaaw xaju fi. soxna si moom dafa rek lok Ndakaaru madame Diallo. su Soukeyna Ndaw di juriste ñu koy nuyu di ko dalal fii ci Kër Leyti. Euh, jërëjëf koddu jërëjëf Leyti ak jërëjëf madame fal mhm. jërëjëf professeur am na naa te trop teew fii tey si plateau bi. Mhm. vraiment di ñaanal suñu. ceet bi mhm. ak boroom këram yàlla na yàlla lafal cat. amiin amiin njaboot bi am barkeel am lislaam. <laughs> rafet nañ dal te taaru yaaññi macha allah léegi na dañuy ñëw nak ci euh, ki borom kër gi di Leyti Fall ne ci kilifa mi la bok xam naa ne kii moom ku am am kilifa ki nag lañuy wax euh, professeur Massamba Guèye man ma koy wax tonton Mass ndaxte man ci xalé yi la fété te xalé yi non lañ la faral di wowe tonton Mass di am mbégte bu rëy dalal fi ci kër euh ma ngi leen di fay yéen ñep di nuyu sama sama jigen waaw di gërëm Leyti ndax Leyti rak la waaw rakk nag dañ ne na sës ci yow waaye bu la rëkkut moo tane. très waaw moom nag rakk la joo xam ne. Euh, tey ñu ngi nii Kër Leyti di waxtaan ak moom euh, bi mu bare monté spectacle am war a dem tournée ji. Mhm. Euh, Italie dafa ñëw ci sama centre bi tudd tamit Kër Leyti. voilà bëggoon mu dem mhm. monté ko fa dem tournée ñëw am un international. Mhm. kon rakk la joo xam ne lu ma ko digal mu def. lu ma ko tere mu bàyyi. du dugg lu ma yëgut. kon ni mu ko waxee noonu loolu mooy dëgg. Kër Leyti boobu noonu. waaw dafa tombeek euh, sunu sunu kër gi rek kër layti waaw. waaw ñu bëri sax ñu bëri sax dañ naan ma fii de kër layti la. wallaay euh, ndax layti lan ko gisee la. Mhm. layti lan ko gisee euh, moom mooy premier historiographe boo xam ne bi ñu dajale histoire du Sénégal dajale ñëpp pour ñu mhm. wax ko. Mhm. bi ñu ko bëggee valider. moom lañ woo mu ñëw toog mu validé ko. macha allah ñu reconnaître ko. tey jii bëri na fi ñoo xam ne ñu ngi wax histoire Sénégal ñu ngi wax lu bëri boo demee xool ci not les les notes. ci archive yi archive culturelle Sénégal boo demee foo gis histoire Sénégal bu ñu validé di nga ci gis turam layti boobu nu mu santoon euh, gisee layti lan ko du gisee waaye ñoom njaay mooy seen cosaan docteur dama lay dog tuuti ci maam layti waaw moo ne woon lu gën a nooy nooy mhm. ñii naan kotonk wittee na kii mu ne leen làmb dajoo dara ban philosophe a ko waxagum <laughs> li nuy wuti ci àll ba mi ngi fi ban philosophe moo waxagum loolu lu gën a nooy nooy ñii naan kotonk xaalak mu ne làmb dajoo dara moo gën a nooy waaw ah, dëgg mu nga di nuyu soxna Xadi nag di ko wax nag nag ne ko na ci kër gi bismillah ah xujja di ko wax ne ko agsi na ci kër gi bismillah waaye nag euh, dinañ ci ñëw ci kanam mhm. euh, dina xam lu tax dugg ci kër gi yombut mhm. waaye toog fee gën a yomb dugg ci yombut dugg ci kër gi yombut waaye toog fee loolu am dégg-dégg dugg ci kër gi yombut toog fee gën a yomb j'espère que nous euh, allons dégg nañ fi ngay waxee. waaw goro suis en train ma faire ngi lay fay sama goro fexeel ba <laughs> non ah, ah en tout cas dal mom dal ay yenem dal ay yenem dal. rafet na ay na ni Je di rek Yalla bu yakar tas. Amna yakar bu bari ci mom. xam ko sunu micro talal len ko di xool benn aspect ci seen dundin

Euh, takk nañ ko sëy ba takk nañ ko ñi ñaani ñaani nañ ñi maye maye nañ mu des nag ay aada ak cosaan ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne si ak i ndénkaane yoo xamante ne si daf ci am kon ñu dem rek te daal di dellusiwaat asalaamaaleykum yéen mbooloo mi yéen yëpp maa ngi leen di nuyu. waaleykum salaam. di sant yàlla du julli ci yonent bi di xamal ne sama doom ji di dem tey yaa ji day bu ko niroo fu mu dem dina fa nekk yaa ji gor la garmi la ba mu wàccee ci kër gi ba léegi xuloowul xeexul muñ na maandu na te am na diine am na lislaam <laughs> Omar Fall ba mu ko yore ba léegi mun na ne ne Omar yorul dara. Mhm. waaye li mu am ak li mu ñàkk kenn xamagu ko. bu ko Omar Fall joxee dina togg bu ko joxul dina togg te dina neex man mii bàjjee na ma bokk ak baayam ndey ak baay waaye mosumaa ñëw ci kër gi mu wax ma lu ma naqari mbaa mu def ma ko mbaa mu xoole ma ko kon nag yow yaakaar naa ne Fall Birima Ngone ne damel buuru teeñ foo dem di fa mën a nekk ndax dañoo ne doom ja ndey ja ku ko bañ sa yaay sa yaay bonul de gor la garmi la ba mu wàccee ci kër gi ba léegi kenn mësut a dégg ñu ne euh, faatoo ngay xeex mbaa ba nga yox te yaakaar naa ne jigéen nag bu demee kër jëkkëram dafa war a góor góorgóorlu bu niroo yaayam dangaa war a góorgóorlu bu baax sëy ba sëy rek bu ne maa ngoo ne na nga to na nga bu baax bul ma mos a rusloo wasalaam alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di gërëm ñu fi teew ñëpp mm-hmm. ndax kii di sama jarbaat maag yaay ma bokk benn ndey yaayam musul jóg ñëw ci man laaj ma dépasse kon dañ koy sante yàlla euh, jarbaan nag li ñu daay wax mooy jigéen ñetti muuraay la am mm-hmm. keroog bañ la muuree di la tudd ñaareelu muuraay mooy tey jii nga xam ne muur nañ la pour nga dem sa kër borom kër ñetteelu muuraay bi yàlla na yéex mooy keroog ba ngay dem barsàq te yàlla na yéex mm-hmm. te bëgg naa nag bés booy dem barsàq na fekk nga jugee sa kër borom kër dem barsàq nga xam ne yàlla moo wax ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ayu mamraatin maatat wa zawjuha raadin anha daqalal janna ne <laughs> jigéen boo xam ne jëkkëram gërëm na ko jigéen boobu dana dugg aljana beneen bi li ma lay yebee mooy juróom-ñaari baat yi jigéen bi bëgg a jur wala wala nga jur bëgg jur ku baax soo ko jëfandikoo yàlla dana la ci dimbali mooy wamaa yatakalam waaw gi ngelawaay soo bëggee wan jur ko am baat na ngay wan baat mim gi nangay ngay muñ yaa gi na nga yaatu mm-hmm. taa gi na nga tabee laam gi na nga lawet kaaf gi nanga am coloré daal gi na nga doylu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne alqanaatu maalun laa yunfadu nee na doylu alal la joo xam ne du jeex ba ilaa yawmi diin comme yaay baayam mm-hmm. man nijaayam la lii rek laa amul lu ma ci sànni di ko yebee waaw kon kàddu gaa ngi noonu bismillah gannaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi xuja duma ko duma ko duma ko gërëm dama koy ñaanal mm-hmm. ndax doom la joo xam ne tey rek laa mës a am ci moom lu ma naqari muy dem bii muy dem mësul xonqal sama bët benn yoon digg jàngam la bàyyi jàng ne ma damay dem liggéey ma ne ko xujjeewoo nga jàng ba ci digg jàng nga ne da ngay liggéey ma yaay damay dem liggéey ndax sonn nga sam pap ba mu yàgg na lu nekk jaay nga ko bu dee njàng moo may may dara ma xam ne du ma amati dara ndax damay liggéey yàlla defit liggéey boobu yalla yombalal ko ko lool bu fayew ko weeram dërëm du ko ci laal day yëkkati tok ci loxo papa nako papa xaalis baa ngi noonu. <laughs> bu dul ba muy dem di liggéey du ko ci dindi. papaam day ak mom ba son mënoo di liggéey weer dee do ci laal dërëm mu papa soxlawuma ci dërëm fajj leen soxla kër gi rek ak lu fi manqué ngeen jënd dama koy ñaanal rek fu mu jublu yalla na fay yalla jublu. waaw yàlla bu mu gis lu mu ragal ci àdduna tey rek laa mës a am lu ma naqari ci moom tey rek tey jii ñu ko muuree muy sëy est-ce que euh, kon asalaamaaleykum mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax a baax ci am mbégte ci yéen ndax li doon nañ ko ñaan ba mu juddoo mm-hmm. ñaanati ko ñu di ko muur mm-hmm. waaye doom sama maa ngi lay teg loxo bopp nii ma la tegal loxo bopp na nga koy fàttaliku. dëgg la ndax sa ndey jii kat seyal na ma hmm. mu sa werante man sama baat bu jógee ca kaw mu baatam laa ci suuf Moustapha mu saxee boobu dépasse musuma tontu benn anam boo xamante bi ne sama xol day tàng mhm. kon doom nanga nga góorlu mel ni sa ndey ba nga am lii nga am nga ñu defal la sa kër ba ngay muur sa doom dama bëgg nga yëkkatil ma ay kaddu defal ma ko ay ñaan ndax suma xol sedd na Hallelujah. muy kon faal ndeke yaram yàlla na boo yenu ndabal fay amin waay man fi toog ba am fi yoonu màgg dund dund dund ba dund sàpp la toog fi ba sëy sët di la teral xujja yàlla na nga dund dund dund dund ba dund sàpp la Fall Ndiaga yaram da ngaa baax yow lii man nga ko am ba may ànd ak yow ba léegi gisuma dara lu ma rëccu ci yow mbubb bu baax yow la dàll bu baax yow la bopp bu baax yow la yow xam nga ne lii du sas yow lii mérite la yow Fall yow da ngaa baax waaye nag loo bëgg yàlla la ko yàlla defal ci sa biir kër gi sa yaay masta yenu ndabal fay yow mi kon Fall Ndiaga yaram yàlla na boo yenu ndabal fay amiin waay Como naa ko yaay yaay njëkk jëkk eh, maa leen jëkk. non maa jëkk. ah ñoo jëkk ah maa ngi ku ko njëkk ci la non fi mu nii kay laax bi rek. fi mu kay nii na laax bi ñëw rek. mais yéen def ngeen lu rafet de sama mm. jabar ji ngeen ma indil nii mm. yéen de dootuma eh sama topp baax na. fàtt nañ ko. wuy ma. fayul fayul fayul fayul. waaw waroon wax maa waroon ah. njëkk a takkal waroon njëkk a takkal. non commencé <laughs> waa liiti eh, li nga def ci laax bi ni yow tamit war nga ko def. mais laax dafa am dama lay summi si basin bii de <laughs> yóbbu am fu ma koy yóbbu. <laughs> siise bi laay jël te ko fee jëlaat jeen bi su ma paree su sumee ba pare Anto Thomas bu ma ko sumee ba pare solaat siise bi. mais laax laax moom boo ko tiimee te nin ko defee ci lekkat sax moo ma gën a lekk loo. leket gee ma may appétit. déedéet kay waaye defuñu ko ci palaat joxuñu la kudd. <laughs> tonton Mass. <laughs> sa layti xamoon na layti sketch bi tax mu siiw laax la. déedéet kay. <laughs> fase na ci jabaram ndax laax. lool de xaw ma ko woon. laax a ko tax a siiw. moo tax daal moom nii lay dundee daal. laax kay moom yemaluwu ko ak dara. doy na waar en tout cas kon xarit yeeg mbokk yi doon yi seetaan. Euh, li mo doonoon deuxième épisode batay rek ci sunu euh, luxumbut parce que ñun dañu fassiyene rek jël xudja ak léyti teg leen sunu caméra rek fassiyene rek jangat lu bari bari bari bari ci seen dundin euh, li ñu gis ni nak mu nekkoon célébration sen mariage ñu gis ci li nga xamante si mom moo ci yeb bi yëpp bi instant bu xamante si bari na trop émotion ndaxte en général ñi ñuy muur bari na luñ ciy jooy

say dëkkandoo say am di jàmm sa bàjjan toog ñi jàngal la duma wax sa baaxu maam waaye sa baaxu yaay ndeysaan ni sa yaay sëyee ni mu muñee mhm. ni mu li ñuy wax euh, dafa sëy ba sëy mhm. ba yàlla may ko yow nga màgg ba tey ñi mën la muur yóbbu la nga sëy donc loolu ay jàngat yu bari la mhm. xam ne dara yombul ndax ku yàkkamti doo fa xaar am ay doom ba ñu màgg ba ñu lay sëy ba sa askan sa waasoo parce que soo xësee ba sëy si benn famille foofu nga bokk ñëw nag di la delloo njukkal. loo xaarul du la fa fekk loo xaarul waaw dëgg la kon nag ñun jigéen ñi dañuy xaar ndax mbir yi duñu fa fekk. Euh, tonton Mass yow euh, góor nga xam naa ne yàgg ngaa jëli seet te euh, boo jëli jee seet di nga am yaakaar kàddu yi ñu jibal jëmale ko ci xujja nga dégg yu mel noonu. waaw danga koy da koy dégg. ndax euh, xam nga yàpp nit ñi dañu dañu bàyyiwul xel ci baat bi euh, tey boo fekkee car bu taxaw boo ne apprenti bi looy def def naan dama koy yàpp kon feesu doon dañ koy yàpp yàpp mooy lan mooy jëlee euh, fenn dugal fenn ngir foofa fees. Mhm. kon kii dañ ko doon yar di ko yar di ko yar di ko yar ba sëy ñëw ñu ne kon nan ko dëj yàpp ko ndax dañoo bañ ku leen xeeb ndax moom ambassadrice de tey moom muy représenté famille am ak i mbokkam lan la jëkkër ji def layti da koo takk yeewu ko yeew mooy nga jël buum ba loxoy nit ki ak i cëram du man takk nag mooy nga jëlee fii jottale fee kon daf ko takk bu doon tubaab da nga naan daf ko attale daf ko takk ci benn njaboot mooy mhm. néeg bi mu génnee ak néeg ba war a war a dugg mhm. waaye comme ñoom bëgguñu ko leen xeeb danoo bëgg yóbbu lu mat ñu ne yar nañ ko yar bi rafet na dégg nañ li wax yëpp dinaa ci ñëwaat léegi waaye ñu ne nan ko yàpp ndax xam nga lu tax lu baax dadul doy te nag mbaax du tuuru. dëgg la dëgg la. gërëm nañ ko ci digganteem ak ndeyam. Mhm. ba rongoñu ndeyam wàcc na ni yii mooy rongoñ yu njëkk. wallaay baayam munta jooy. waaye nee sëriñ bi ñaanal ko. ndax xolam fees na. ndax xolam sedd fees na. Mhm. kon baayam ñaanal na ko. baayam ree na ku sa baay ree nga am bay ree. macha jooy na. xamalu ndeyam jooy. layoo bi jeeg. ay jeeg bu ñuy werante maa la gën bu doom ya màggee atte dégg naa dëgg layoo bi jeeg mm. bu doom ya màggee atte dégg naa kon lan la lan la nday ji di jooy mooy alhamdulilah rabbil alamin dugg naa ci kër gi sëy fi fabu yanuma ndabal sëy ndabal fay ba tey sama doom ñu muur ko digg sama nawle yi kooku moom mooy rançon de la gloire. jooyu mbégte la dinañ ci ñëwaat. Euh, macha allah yàlla na jéeg bu ne jooye yi jooyu mbégte ci biir këram. léegi nag euh, balaa ñoo ñëw nag ci pàcc bu ne fas yéene ne ko nag euh, toj yax bi comme ni mu ko euh, tàmmee def rek tonton Mass ak tamit sunu mag yi moom tamit nga xam ne dugg na si néegu sëy yàgg na di jëflantee couple yi am expérience bu takku macha allah ci wàll wi dinañ ci ñëw léegi yow demoo woon da nga yónnee xam naa ne ña nga yónni lii ñu fi jot a dégg nettali nañ la ko. ban sentiment nga am ci li nga jot dégg yow mi nga xam ne ne ni nga ko waxee woon rek yaakaar ngay dundee yàlla bu yaakaar tas yaakaar bi gën na gën na yokk ci yow. ñi demoon jëli seet bi am na lu nu ma wax waaye ndeke am na lu nu ba. léegi gis nga lépp. waaw ndax fii jàng naa fi ne yaayam nee na su liggéeyee ba fayeeku salaire bi yëpp da koy delloo baayam. ndeysaan bugg ci dara. te fi jamono toll. ku ne hmm? xam na ne. te lolou mom musuma ko wax ma ngi ciy jot kon man defe na ci sama xel ba tay juumuma ci ki ma tànn. te am nga ne bu fayé ko dina jël xaliss bi tek ko ci sa loxo. non xam nga. soxla ne la chéri xam nga légui lo bëgg ñu décider ci xaliss bi. xam de xam nga xam nga lolou sax suma né war na ko def day melni daf ko wara def. Mhm. mais su ko défé dina la né lolou waru ko ndax ki leppam man la war. machallah allah lumu am. banaa koog moom te wuti lu ma am dollil ko. léegi nag am naa ci yow yaakaar yaa am ci moom yaakaar ah. man maa am ci yow yaakaar nag macha allah yàlla bu yaakaar tas. xujja biñ la muuree euh, sëru rabal bi nga dégg li nga dégg lépp ak leneen loo xam ne xëy na ñun jotuñu ko déggaal jotuñu ko gis lan nga doon yëg si instant boobu. Codou li ma yëg bari na ndax jigéen bu nekk li ngay ñaan yàlla tey sa yaay toog. nek ak sa papa nga am fa dom ba ñuy muur doom ji di ko teg yeneen loxo góor yaakaar naa jéeg bu nek loolu ngay ñaan yalla mhm. te man may loolu lay ñaan yalla defal ko sama dom, waaw mhm. parce que tam amuñu lu may lii mhm. am ne duñu mur ñu dem diñu sey kon nak li ñuy yabee nañu góorgóorlu ba bu buñu démé nañ ko jëfé buñ ci bayyi virgule gaa mënul ñak waye su ñaké tam nañ la ko waxé won na nga oyof comme mbaxana na nga oyof mhm. bu jaree sukkuraam nga sukkuraam mhm. ndax ñii sunuy sunuy sëriñ lañu sunuy sunuy lépp lañu mhm. te jigéen moo sañ a taxaw ci digg néegu sëyam ni fii may sëy maa fi sañ jur doom ji baax waaye nanga ko fa liggéey na ko fa liggéey na nga ko fa xaar te fas yéene naa ko fa fas yéene allah yàlla bu yaakaar tas tonton Mass euh, ak euh, Soukeyna du ñu def rek lu dul daal di nag ñëw ci li nga xamante ne si dafa am baat bu ma for léegi si bàjjan bi muy doom ja ndey ja te sunu askan baat boobu dañ koy faral di jibal euh, bu fekkee ne sa ndey dafa nekkoon sëykat ñu ne ah am nañ ci yaakaar bu fekkee naka su du noonu ñu ne ah xëy na yàlla baaxal ko wala yu demee noonu yaay dafa yàgg Euh, loo xamante ne si safaan la ci yarunu doomam wala yu demee noonu waaye su baaxee nag ñëpp a koy bokk kon du ñu def rek lu dul daal di déglu li bàjjen bi ak baay bi seede ci yaayu Khoudia Fall bi toog di euh, seetu Leyti Fall ñu daal di dem daal di dellu siwaat kon asalaamaaleykum yéen mbooloom mi yéen yëpp maa ngi leen di nuyu. waaleykum salaam. di sant yàlla du julli ci yonent bi. di xamane sama dom ji di dem tay yaa am ji day bu ko niro fu mu dem dina fa nek yaa am ji gor la garmi la bam wacce ci keur gi ba legi xulowul xexul muñna manduna te amna diina amna l'islam Omar Fall bam ko yore ba legi mun na ne Omar yorul dara waye limu am ak limu ñak ken xamagu ko bu ko Omar Fall joxee dina togg bu ko joxul dina togg te dina neex dangaa war a góorgóorlu bu baax sëy ba seey ndax sa yaay dafa sëy ba seey sa jii kat sëyal na ma musta werante ak man sama baat bu jógee ca kaw mu euh, baatam mooy wàcc suuf musta fay musta xëy boobu da musuma tontu benn anam boo xamante bi ne sama xol day tàng jërëjëf euh, Ami Collé ci extrait boobu nga ñu indil tonton Mass euh, li ma fi dégg man sama yaram sax dafa daw waaw yàlla na yàlla def jigéen matal lii yëpp bu euh, waa xam nga li nga li nga wax noonu ñaan boobu ñaan bu am solo la waaye man li may gën a li may gën a taxaw mooy kan moo seede bàjjan mhm. bàjjan mooy baay bu jigéen ndax bu doon góor baay nga koy wax li muy jigéen moo tax nga ne ko baaj baay jigéen muy bàjjan ci kan la seede ci ndey mhm. lan la ci kooku mooy njëkkeem njëkke te ku ne xam na relation yooyu yenn saay yi ni muy mel bu fekkente ne jaarut ci yoon mhm. waaye lan mooy njëkke bu doon tubaab boo ko doon dagg tey verbe bi mooy mooy euh, radical bi mooy njëkk ñu ne dee ko njëkke boo amee lu la naqari njëkke ko ndax moo àndoon ak ku góor kii ñu bokk ndey ak baay mbaa ñu bokk baay ñu màggandoo foondoo moom rek a ko xam ndeyam xamu ko baayam xamu ko sœur bi moo ko xam ñu ne la dee njëkke del njëkke ci moom kii daf doon daf doon déyoo ak magu wala rakku jëkkëram dëgg la bàjjan nag ndegam mooy baay moom mi jigéen mhm. sëyoon moom mën a atte kuy sëy lan la ko atte musta yanu ndabal sëy mm-hmm. ndax xam nga ne. jigéen ndabal fay. ndabal fay xam nga jigéen joo xam ne musta fay moom rek lañ may mu muur jigéen ju sëy ndax xam nga loolu. dégg naa lool. mooy li dégg naa lool jigéen ju mas a fay doo muur jigéen ndax boo ko muuree mu fay. dëgg la. Oh. kon jigéen ju ne da nga daan sëy ngir ëllëg ñu woo la ne la kaay muur ndax jour boobu sa victoire la ni Ronaldo bëggee ballon d'or. nonu la ko jigéen doon bëggee. Mhm. lan moy lan moy ballon d'or biñ ko don jox nak moy kay nga muur jànq. communauté bép ñoy réunion né diw kan moy muur diw. Hmm. kon nak baxna na. Euh, dafa ablu bu fa bëggon euh taxaw seetlu. Mhm. xam nga so xolé légui dañuy gis né divorce yi bëri na torop. Ah. dëgg xalé dëgg la. li nga wax ni masamba dafa. sama dafa ni yar sama xel mané est-ce que du parce que ni mu xalé yi dañ dan fay man tay sama xel sax dafa dem sama xel sax dafa dem ci sama ben xarit bu fay bu yagout ah. est-ce que ki muur ki muur soxnaam fay est-ce que du loolu parce que itam li mo moo ah, man li dégg naa ko culture li dégg naa am solo mhm. xam nga xam nga moom analyste la mhm. analyste la da ngay wax rek mu am ay références mhm. nek juriste nek aussi ko xam da fay bouger absolument xam bu baax donc question c'est une question oratoire qui peut porter sa propre réponse. Absolument. D'où l'importance de connaître sa culture. Parce que dina la éviter lu scientifique yi dinañ la wax c'est empirique. Mhm. mais empirisme boobu nous avons nos réalités. Ah. yoo xam ne waruñ ko sàgganee. tey ma ne hmm. man ak yow ak ñiy seetaan dinañ jàng lu bëri ci suñu culture bi. ma ne parce que yàgg nañoo dem mariage ñun ñi yàgg nañoo yag nañu def yenen ak yenen te musuñu xam lu mi tekki tay bu soobe yalla dinañ xam lan waaw legi lima ma bëggoon dellu si waat tuuti si affaire bi itam samba waxati nga lu am solo parce que man mhm. toujours dama lay déglu mhm. et franchement toujours dama jang ci yow mhm. xam nga da nga décrire lan moy ñëkke ki nga xam ne da ngay jitu ci mom su dé da nga am lo war diso, ci si sa walu sey waye est-ce que ñëkke tay ñi ngi def yëfu njëkke est-ce que nekkuñu di wujj au lieu de def yëfu njëkke damay laaj dong <laughs> ah tonton Mass lay wax ci lool waaw li mu wax ni dañ ko seetlu seetlu nañ ko tey ne njëkke yi jàppaletuñu seeni seeni seeni jabar ndax boo xoolee sax baat bi moo doy waar euh, njëkke tey euh, tey jii layti ay magam wala ay rakkam yu jigéen nan la ñuy wooyee soxnaam sama jabar kon koy ay jëkkër lañ ndagam ay jëkkër lañ dañoo war a góorgóorlu téye ko ni ko layti téye mais doguma la mais layti xam nga fa ndox daan taa ba léegi am na ay tepp-tepp ñii baax a ngi baax ñii bon a ngi bon gis naa ay njëkke yoo xam ne dañuy jënd yére jox seen jabar ñu ne du yow yaa may indil de yow jabar bi man maa lay indil jënd yére jox la jënd daal jox la loolu yëpp si raxatal xam nga loolu rataxal diggante la parce que boro seen mag moo ko waroon def. kan la ko jëndal. moom boppam la ko jënd exactement ndax xagam la bu génnee ñun saalum saalum da loolu la ñuy wax mhm. sa jabari càmmeñ bu see sa sag la kii doom jum jur tey nu muy sant faal faal lu muy lu muy bokk ak sëru layti mhm. ñooy bokk benn sant buñ bokkee sant ñoo bokk deret mhm. loolu la tubaab bi tuddee structure ADN te la bokk ak seen doom jooju euh, njekke ba bokk koo xujja ñoo bokk seen deret moom mii xujja lu mu ak doomam dara wallaay wallaay jur rek bokkuñ dara. du ko waaye ñoom yi neen ñoo bokk seen askan. waaw fi mu ne doom ja danaan ko ñoo bokk meen meen yaa yaa jox deret. waaw yaa ma jox meen waaye wi ak euh, kii bi. waaye nag deret ji nga xam ne tey bu jigéen bu bu doom juddoo dañuy xool ba xam diw ko jur wala diw. Mhm. deret la ñuy laaj. dëgg la loolu la ñuy wax ADN mooy mandarga yu. wallaay ci wolof da nga naan manday mandarga yu njureel. dëgg la structure ADN. bàyyi bee koy joxe. loolu nag li mu wax su fekkente ne njëkk bi matut nitewut. kooku boo ko wuutu boo ko indiloon jabari jamaa sax. day mel ne euh, ganaar goo jox lu mu lekk nu mu def dana ko gës. wallaay wallaay. am na njëkk yoo xam ne tey xamuñu lan moo leen war. xam nga lu indi loolu. Mm. mooy yar bi ñu nit ki mu ne ci wetu ndeyam ne wetu bàjjanam. Mm-hmm. ñu koy jàngal. Mm-hmm. ci bu mu amee juróom-ñaari at. Mm-hmm. muy dégg. ndax ñun duñ société booy toog ñu lay sax mhm. dañ lay wan ngay gis mhm. maanaam doomu bàjjan doomu nijaay kenn musuñu koo jàngal mokkal nañ ko kal kenn musuñu koo jàngal mokkal nañ ko gàmmu diggante séeréer ak joolaa kenn musu koo jàngale ci benn école te mokkal nañ ko mhm. loolu nga doon gis mag ñi di ko def jigéen ñi di ko def góor ñi di ko def ñu lay dégtal nag nga am fukki at fukki at ak benn mën a taal reer fukki at ñett nga commencé taal añ du woon taal añ ba Saya di tan ceb ne la sama wet du woon tànn ceeb ba ca lañ lay jàngal luy njëkkee jàngal la kan mooy sa càmmiñ ndax sa càmmiñ jur dom tu la ko. wallaay waaw léegi nak comme bu amé dom tuddé lako ta dom ji mënu am ta jaarul ci jabaram waaye bo musé nak téy sa magasin. té fonko ko. lo de deug na deug yow xujja xam nga bu baax sa yaay xam nga ci limu doon dox xam nga ci limu yar daan nga jël sa bëb bi di tek ci ay jëf yu bare bari kon kaddu gi dama koy jox léti léegi euh, mën naa ne am nga goro ci goro yi lan nga wax ci lii ñu waxal sa goro. waa dama njëkk a gis ne xuja naxuma xam nga ca ba ñuy toll ci choix tànn waxoon naa la ne xale yu jigéen yi léeg-léeg dañuy théâtre mhm. dañuy sukk ci sa kanam jooy ndax mbëggeel te tu leen fii ku leen takk rek la ñuy wut dama doon bañ nag tombe ci kooku waaye kii boo dégloo li ma fekkewul mhm. ci bi ma ko jàngee mhm. mooy moom waxoon na ma ne suñu kër charia rek moo fay dox man loolu laa gis maanaam dañ leen a yar ndax ndax dégg nga waajuram bu góor li mu seede ci waajuram bu jigéen kon jàpp naa ne kii su toppee tànk yaayam ak li docteur wax mooy kii moom mhm. toujours dinaa ko dëkkal ba ba muy nekk maire xam nga ay xale lañ ba ba muy nekk maire dinaa koy dëkkal ci sa bopp ah bàyyil xel koñ bi nit dina fi war a sëyi ga dem muur ko boo Moustapha yi nag doo ko am. wallaay <laughs> jërëjëf xaw ngeen ma. wallaay wallaay dégg nañ la bu ci sunu sëy. Mm. su bëggee déconné rek ma ne ko ah bis boo fi bis boo fi tasee doo muur kenn <laughs> te ballon d'or la boo doo muur kenn. kenn. Mm. te ballon d'or la. dëgg la nga bis ñëw nag nga nekk maire muur fi jànq mu sëyi. te ah te nag dafa am xam nga jigéen ñi macha allah dañoo muus. fay bi moom génn ci kër gi mbala néegoo néeg yëpp fay la rek. waaw xam nga fay mooy la fay la rek. fay mooy fanaan fu neexut sa jëkkër te amoo te demoo ci ndigalam. kon jeex na. loolu mooy fay. waaw nag bàyyil. génn ci néegu chambre conjugale bi dem ci chambre. des enfants yi saal bi. fay la rek mbaa saal ba fay la maanaam gedd lal bi wàcc. ngir bañ a joteeg sa jëkkër. ak bañ a wax ak moom. xeetu fay la ah, ah, waaye nag génn néeg bi moom mm. ndax jigéen buy sëy si ci néeg lañ koy dugal li kër gi yaaya am néeg la fay am nga bàyyi xel ci leneen moom mii ba nga xamee ne toog na ndayam toog ca yanu taggee ndeyam da cee am loo xam ne dafa am doole lool muy lan mooy musta jàmbat am na sutura luñ ko jox luñ ko luñ ko jox mu togg luñ ko joxul mu toog te kenn du xam loola feeñ na léegi mooy dugub ja kon jeex na loolu dinañ ci ñëw léegi ci ñëw léegi détail par détail dinañ ci ñëw wante li lay ti wax ci loolu lay mm, jigéen jigéen mooy jigéen jigéen jigéen ba yàlla sàkkee dafa sàkk góor sàkk jigéen ñu ne jiyee gën yàlla ne kon wala xadd karam naa bane aadama li ma sàkk lépp nit a ma ci gënal mm-hmm. kon naa ko dugal ci jigéen ah, bu jógee ci man naa ko làq foofa ba baa muy génnaat nag ñëw ci nit. jigéen. waaye kooke kay nag kay. <laughs> nag bu fekkee yaa ngi yenoon ndabal sëy ba dem nag waaw kodd sëñ Sam ne woon na suukar kenn mënu koo nettali nit li muy saf. na ko ñem rek. waaw léegi ku mas ku musta fay man de damaa mas a toog mu am ku ñuy fay li suñ biir kër. ku ñuy fay le ku ñuy fay li. fay li mooy ku fayoon ba jëkkër ji ñëw di ko jël si. Ah. pour mu war a dem. d'accord. ñu laaj sama yaay yàlla na ko yàlla yërëm. amiin ñu laaj ko ne ko waxal mu ne man kat damaa mënut wax ndax mosuma fay. wallaay moom na ma jàngal nu ñuy fayle. wax nga dëgg de wax ja feren ko laay. léegi nag la bëggoon laaj. waaw nga baal ma. damay dégg ñu ne. Euh, jigéen bu fayee dimaas dem seen kër. Mhm. bu ko jëkkër ji buñ koy buñ jëli. su bañee jëkkër ji day dee.

mën nañ cee ñàkk seen bakkan donc moo tax dañuy laajte ban bis la fay. <laughs> fay kañ baaxul. balaa ñu koy dem jëli dañuy laajte. su koy ne daanaka li mu tontu mooy tontu bi euh, fay baaxul. waaye dafa am benn téere boo xam ne. Mm. dama ci nekkoon di ko gëstu. Euh, nga xam ne moom moo lëkkale euh, lan moo lëkkale bis yi ak ni àdduna bi doxee ak jant yi ak weer yi xam nga bis bu ne dafa am màndargaam. mais bis bu fekkente ne weer dafa dooree dimanche te weer woowu di terminer dimanche dafa am lu muy tekki kon dimanche pas dimanche bii tubaab yi di wax dimanche mais mag yi nattoon nañ bis yi bu ci ne diisaayam te li ma lay wax nii tey. Mhm. am na ay téere yoo xam ne gëstukatu arab yi gën a rëy. Mhm. gëstu nañ ko. Mhm. ñu ne la bu fekkente ne danga ngaa fay dimanche ña jëli dañuy dee wax la ko. yow bu fekkente ne bëgg ngaa dem te dootoo ñëw dimanche ngay dem. waaw maanaam dañ koy dëgtal nit ki ba xam jigéen ji ndax jar naa jëli wala jartu jëli wala ndax da doon fay faylu wala ndax da doon fay tonton Mass ana bañ a dem doo toog lenn daal laa la yëgal sa kër gu yaa gi ba mujj ñu naan la sa néeg bu yaa bi <laughs> ci arrière la bokk ëpp na wallaay ko doon wax waxi tey sëy ci kër di gérer kër gi ba mujj nga delluwaat ci kër ga di bokkum néeg waaye xam nga ne bokkut wallaay gis nañ ne daal kon euh, li ñu gën a jàpp ci témoignage yi mooy sëy na fa ba sëy dañ la euh, sas nga sëyi ba sëy te sas la it nga doon rek euh, sa ndey mooy doom ja ndey ja léegi nag dañuy ñëw nag ci li nga oui sukkee waaw am na itam lu ñu wax lu am solo de imam defe naa bi mu koy yedd wala papa ji daf ko ne jigéen ñetti muuraay nga am mm-hmm. mouraay biñ lay ngenté mouraay bi ngay sëy ak mouraay kérok bi ngay génn àddina donc je pense aussi que loolu lu am solo la si wàllu sëy xam ne euh, dundu jigéen dafa am ay étapes dëgg la yu crucial yoo xam ne loolu moo am solo li si des yëpp ay détails la mhm. toujours man li may faral di wax ne mooy gis nga mbir soo koy set wala problème sooy jànkanteeg moom dangay xool lu si am solo. Mm-hmm. li si am solo nga lijjanti ko bi nga fenati waaw bañ a nekk détaillant di nekk grossiste. waaw ah bañ a nekk détaillant di nekk grossiste daf ci am solo. yaa ngi dégg. <laughs> <laughs> léegi nag dañuy ñëw ci ki nga xam ne moom moo di ndeyu mbili gi mu di xujja euh, euh, parce que dañu naan bu dee diw baax na dañu naan ndax mbokk yaa ko wax looloo waral tamit euh, yëpp biñ la yëpp ñi lay ñëw jël si day am espoir tamit bu ñuy dundee léegi nag kon du ñu def rek du dul daal di déglu xujja yan qualité la ko ay waajuram gisal bu ko defee ñu daal si waat ci plateau bi. duma ko duma ko duma ko gërëm dama koy ñaanal. Mm-hmm. ndax doom la joo xam ne tey rek laa mës a am ci moom lu ma naqari muy dem bii muy dem mësul xonqal sama bët benn yoon dëgg jàngam la bàyyi jàng ne ma yaay damay dem liggéey ma ne ko xujjeewoo nga jàng ba ci digg jàng nga ne liggéey ma yaay damay dem liggéey ndax sonn nga sam pap ba mu retraité yàgg na mm-hmm. lu nekk jaay nga ko bu dee njàng moo may may dara ma xam duma du amati dara ndax damay liggéey. kon nak euh, ñu jang ci euh, yaayu xudja ne xudja ku am yermande la ci ay waajuram. Euh, man dal lima japp ci li soxna ci wax moy jigen joo deg mu nan buma don doon du def dara bu don du def dara.

dina ci am solo daf ko dagg baat bi ñu utiliser dafa am solo yàqu njàng mi da koo dagg lan moo tax mu dagg ko liggéey ngir aw baayam mhm. ay war war da koo war wa xam nga warugar wenn waru ci morom ja te am na ñaari warugar warugaru jàng ak warugaru furli baayam te bëggut ko xeeb baayam ndax xam na ne bu ñu xeebee baayam ñu xas ndayam ndax dañ ne euh, bu ñuy tagg jigéen dañ naan ko yaay jàppale xer bay téye sàkket da koy daru yaay jàppale. maanaam jigéen dafa a nekk pied boo xam ne góor palissade la boo xam ne day basculer. mais jigéen ji bu fekkente ne am na jigéen ju baax. moom da koy téye ba palissade bi du basculer. léegi ñu ne ko yow da dagg sam njàng waaye nag la nga wuti woon loo ca am dang nga koo bokk ak sa baay. gis nga booy wut góor muy jëkkër xoola ku yërëm ndayam booy wut jabar xoola ku yërëm baayam. dégg naa dëgg dégg naa dëgg su euh, su kay na dégg nga dëgg. naa dëgg bu mhm. wér li ma jàpp itam euh, mooy xujja ku doylu la mhm. parce que jamono gii tey ban xale mooy liggéey ba weer dee yëkkati salaire am jox ay kilifaam te ñoom cheveux naturel nekk fi nga war ko jënd cheveux naturel xalaatu ñoom dàll yu baax yeeg parfum yu cher yi donc euh, Leyti am nga tebbi nga aas mm. pour wax comme xale yi mm-hmm. kon nag euh, vraiment euh, jàppal ci la li la ma sàmba wax mm-hmm. dafa dog jàngam na xujja jàng mm-hmm. parce que su jàngee da lay dimbale day dimbale boppam te day dimbale ses futurs enfants absolument donc loolu euh, boppam nga koy defal mais mm-hmm. itam sa bopp nga koy defal na nga dimbale itam laayee ko biir mm. parce que ki ni ñi gis ku am xel ku am xel nak su la bolé ak mom def ko sa xarit ngeen di sotante xalaat mhm. euh, sa njëriñ dong lay doon la xujja mhm. leyti kon ñu ne laf ciat rek mhm. delo ci rek ne laf ciat machallah allah eh, du bayil ci xel ci len hmm? leyti nee jigen la doon bëgg ay xujj la tànn noo def ak xolu nday bu sedd ak ñaanu bay ci fofu sax lay ñew ci fofu sax ñew euh mu na na nek euh, sunu element bi di ñëw ndaxte euh, dañuy war sa suné ne dañuy euh, dañ lay bu ku sañon dal boy dugg ci projet bu yem ni mariage nga xamné c'est un projet de vie Nek mbir mu doy war c'est vraiment très sacré euh beuri tamit ay mbir yu mu ëmb bànneex yenn saa yi jafe-jafe yenn saa yi dog-dog ak yeneen yu demee noonu yooyu yëpp pour nga mun ko dékku dañuy wax ne yàlla nga am ñaanu waajur ñaanu waajur moom ci lu ne euh, daf lay wallu rawatina si biir néegu sëy ñu déglu kon ñaan yi nga xamante ne si moom la ko ay waajuram ñaanal moom xujja ñu ngi lay yeb nag yebe jàmm sa ji de gërëm ko ni ma ko gërëm noonu laa la gërëme ndax lii sa ndey wax lii sa nijaay wax lenn tebbeku ci te la danga ko doon jëf foo jëm yal na fa yiwu jàmm yomb gën a wàcc yal nga gën a barkeel barkeel nga sax ndax bu ñu toogee ba muur la rek barkeel la kon yàlla nga gën a barkeel dama koy ñaanal rek fu mu jublu yal na fa yiwu yàlla jublu waaw yàlla bu mu gis lu mu ragal ci àdduna tey rek laa mës am lu ma naqari ci moom tey rek tey jii ñu ko muuree muy sëy ndeysaan euh, dañuy wax rek amin dañuy wax rek euh, ndaxte ñaan yi ci xol la ko waajur yi tibbe te xam naa ne tôt ou tard dina ko soxlaa ji ndaxte dina am yeneen ak yeneen ci jëmmi jamono ci yeneen ak yeneen yu ñuy ñëw ndax sëy rek c'est un long fleuve tranquille yenn saa yi nga gis ci ay jasit yenn saa yi nga gis ci ay jën nga jàpp lakk lekk boo mooy bànneex bi yenn saa yi nga war a jonkonteeg ay jasit war a jaar jàll ak yeneen ak yeneen mas eh, waa li ma seetlu daal mooy eh, ci jataay bi bi bàyyi ji di wax ak moom gis naa gone gu jigéen gu sëpp war a doon sët ëllëg waaw te te ñu war ko muur ëllëg mi ngi ciy jàng waaw damay tontu rek ñi nga xam ne dañ ne ñun suñ société gone kenn du ko yer dañ koy bàyyi rek muy téeréeri dañ leen di nëbb dañuy nëbbatu ak ñiy wax naan jigéen du jël kàddu ci kanamu góor boo xoolee bàjjana wax ndaye tëj te ci diggante bi imaam a ngi toog bàyyi ngi toog kon société bi ñu yoroon ñun société boo xam ne dafa yor dafa jox jigéen cër. lam moom dañ ko koy bàyyi mu wax ko. dëgg la mais gone yi dañ leen di woo bu ñuy wax lu baax gone yi dañ ñëw di ko dégg. moo tax ñoom dañ leen ko ci nàmpatal. xam nga xale boobu waaw amagul sax presque juróom-ñaari at. Mm-hmm. bu fekkente ne yii buy am da koy dégg moom xam naa ne ci biir xolam mi ngi yàkkamti moom bis ñëw ba mu am ndam lii ndax nag gone du jooy fowukaay bu musta gis. Mm-hmm. gone gu musta gis avion. du ne bàyyam jënal ma avion. gone gu musta ñëw ci gis ceet gu rafet. du mas bëgg ceet bu rafet kon loolu lu fondamental la li nga xam ne moom laay moom laay daanelee mooy jigéen yow ngay jigéen di génn sa kër baay sa yaay di jooy ñetti rongoñu a tuuru ma fàttaliku keroog ba muy mucc doom di judd rongoñ nday ndey ma romb ci mbedd mi dégg ñu naan doomam du tekki mhm. ak rongoñu nday ma keroog ba nga daggee sam njàng ñu naan bëggee tax mu yàq njàng doomam mhm. ñaxti rongoñ yooyu ñoo tuuru moo tax nday sëgg waaye nag li ci ëpp importance mooy jooy na tey parce que musta jooy wala kenn musta gis rongoñam mhm. parce que bu daan jooy day nëbb mhm. ndax nag xëy na bàyyi mas na ko def lu ko naqari waaye bañ a fanaanoo meram moom moo tax mu daan mel ne ku bég te yow bu fekkente ne dem nga kër layti tey nooy def ndax bis bi bëggoo ko di mur say dom ba nga sa rongoñ sogu genn parce que ñaara am genné rongoñ ñu layti rongoñ yi dula fa fekk mba nga neub rongoñ ñu layti rongoñ yi tuuru lolo am choix boobu nag yow yaa def su kay na sas nañ la de chéri sas nañ la mais yalla nga dund li ma dund ko xuja dund ko amin amin yalla yalla bu mu ump ben jek yalla bu mu ump ben jek amin amin si amin fii si Sénégal euh, koddu man li ma li ma li ma jàpp si yeb bi si ñaanal si ñaanu waajur yi sax mooy euh, xam nga luñ ko ñaanal jàmm mm-hmm. nee na la yàlla na nga am jàmm yàlla bu la naq naqdi si sa néegu sëy man pour man ñaan boobu ñaan gënu ko foox mm-hmm. parce néegu sëy si boppam dafa naq di néegu sëy si boppam dafa naq di ndax dafa gudd dafa nekk loo xam ne xamuloo ko te dafa nekk itam affaire chance parce que yaru nga lool car macha allah jekk nga euh, say waajur gërëm nañ la waaye nag kenn xamul la yàlla di réserver donc comme que ñaanal na la ñaanu ndey sa ndey kontaan na xolam fees na ñaan bi day nekk comme balu fetal donc incha allah ñi rafet njort yaakaar ñaanal la jàmm bi la sa yaay ñaanal nga am ko dara bañ la di si biir néegu sëy amin amin waaw tonton Max lay gërëm madame Diallo Euh, la nga wax ne jàmm lañ ko ñaanal bi muy génn ci kër gi waa kër gaa ngi way ñu jël dugub sotti ko ci kawam ci seeru seeru rabal. di di doguma la tonton Mass loolu mooy nekk suñu prochain point léegi nii. dama koy junj. Mhm. ñu ñaanal ko jàmm. foo jublu yàlla na fa yiw yàlla jublu. Mhm. lan moo tax ñu ñaanal ko jàmm. ndax bis bi bisu jàmm la. Mhm. sëy bi sëyu jàmm la. wallaay lan moo tax ñu ñaanal ko jàmm. Mhm. kon ndax dafay xeexi xeexut mhm. bu doon xeexi ndam lañ koy ñaanal. Mhm. xeexi ndam lañ koy ñaanal te sëy léegi nit ñi dañuy xeexi. waaw mais waykat ba waxoon na sëy xare la saay ba ci juree doom jam nañ la wala ba tey du boobu. <laughs> déggoo li ma la def na la saa ci juree doom. jam nañ la jam nañ la. doom lañ la wax bu juddoo. jam nañ la néew ma la xare jiwul de dama ne xeexiwut ok xeex ak xare bokkul adu ah, benn waaw xam nga ñun boo bëggee bag da ngay xare ba am ko waaw boo bëggee bag ak mention da ngay wàññi say nelaw di mm. xare di xare di xare ba am ko waaw doo xeex waaye boo demee poñe examinateur yi dóor leen ko <laughs> boo xeexee doo ko am loolu leer na nañ nañ nañ nañ séeri xeex man du may teel a comprendre mais boo ah. expliquer bu xaw a yàgg damay comprendre <laughs> léegi euh, léegi yow docteur mu toj rek waaw ci <laughs> yax ba toj na léegi xujja euh, xëy na sa yaay ñu ngi lay seetaan sa pap mu ngi lay seetaan ak li nga jot gi jour boobu mënoo woon wax parce que xool fees na ñu ngi la muur ban kàddu nga am boo leen di euh, leen nga wax ak ñoom ñu ngi lay seetaan koddu dama bëgg man fim ne limay may ci émotion eh, ak yërmande légui bu mu téyeeti micro bi sax day dis na ko koy téye na ko koy téye lool yëpp ci xeetu jongé la jonge point com tout est permis tout est permis lan nga am loy wax sa wajur yi euh, xana di len delu delu di len santat di len ñaanal ñu dolli may ñaan yalla bàyyi sama kanam ñu gunge ma gunge ma gunge ba fu mu bëgg ég ak sama jëkkeur ma egg fa ak moom mhm. parce que lii yëpp ñoom la ñoo ma ko ñaanal mhm. ñoo ma ko ñaanal mhm. yal ma yàlla ak sama jëkkër bàyyi ma ak samay waajur <laughs> amin yàlla na ko yàlla def ci barki Seydina Mouhamed sallallahu Alaihi Wasallam. sallam léegi nag dañuy ñëw nag ci nga xam ne mooy euh, cëppaandaw émission bi waaye du ñu jeexal am fi kii yem ni euh, professeur Massamba Gueye te du ñu su ci lu bari ci suñu wàllu aada ak cosaan ndaxte euh, lu jëm ci wàllu bi en tant que tel Euh, ba jëm ci laax bi lël yëpp dafa bari ay signification du ma dugg ci détails yi dañuy ñëw rek benn compilation bu ñu leen defal ci wàllu aada ak cosaan bi nga xam ne moo ëmb sëy bi ñu dellusiwaat ci plateau bi. xam nga ne lii du sas yow lii mérite la yow. Fall yow da baax. waaye nag loo bëgg yàlla la ko yàlla defal ci sa biir kër gi sa yaay masta yenu ndabal fay yow mi kon Fall Ndiaga Yaram yàlla na boo yenu ndabal fay.

amna mom mi di xujja ñu mur ko sër bu Demna bi ak xalé bi ñu mur benen bi xawa euh, Demna ba ci ko dal yu ñu taamu ko ci loolu tonton di nga bëgg na nga ci ba ci aussi euh, euh, leket bi biñ ko defal nonu leket bi ak gamb bi bàjjen bi euh njëkk bi ko japp bi ak Nat dugub bi dugub bi ci bi lax bi vraiment dafa bëri ay sama genre gi nag bari nañ ci ñoo xamante ne si xëy na defal nañ leen ko wala gis nañ ko ñu koy defal ay nit te xamuñu lu muy tekki mën nga ñu waxal loolu yëpp lu mu wund. waaw xam nga téléphone portable boo ko jëndee mu jógee ci meneen réew boo ko bëggee jariñoo fii senegal danga nga koy décoder. Mm-hmm. boo ko décoder wu du la jariñ. Mm-hmm. yii ñu wane ci ceet gi yëpp amu ci lenn loo xam ne buñ ko leeralee boroom xel du ko mën a nangu waaye boo tëbee nga bëmax ko bañ ko rek ne dof la. da ngay dem ca la tubaab ba defoon ñëw ne ñun lu sunu maam def yëfi golo la waaye li tubaab bi def mooy lu baax te moom am na ay aadaam ba ca robbam bu weex boo xam ne gisoo benn tubaab buy sëyi di sol rob bu wert mhm. kon tey ba liir bi juddu ban sér lañ ko muuree woon. séru rabal. buy génn àdduna nit ki ban sér lañ koy muuree. séru rabal kon buy sëyi ban lañ koy muuree. séru rabal lu ko imaam bi waxoon ñetti muuraay am. séer boobu dëll na dëll goo xam ne sutura rek a ci ne lum nëbb kenn du ci teg bët wallaay waaye dañ ko daan tuddee séru rabal tuddee ko séeru njaago waaye séer la boo xam ne dañ koo ràbb luñ ko ràbbee danoo jël wëñ ak wëñ lal ba nu ànd doon benn sér kon moom bu demee lu mu war a def ci diggante mbokk ya di ràbb ba mu dëll ne séru dënk macha allah loolu mooy mandarga bi mooy mandarga bi beneen bi ci topp nga wax ne dugub ji lata lolu dàll yi. waaw dàll yi bo xoolee bi mi génn mom la sol muy dal yu bees dàll yu bees waaw. day dund dund gu bees. solo ni dal ci dëkk bi bam rap ñu won ko ne ko tay summi nga dal jank sol nga dal jek génn nga ci néegu po ya nga jëm ci néegu dëgg dal yu bees yoyu fexel bam rap fa. dégg wax ji hmm, dégg na ko dégg na wax ji. dal yi na fa dagg na fa mhm. leket gi leket gi nga xamne mom la bajjen bi yor tiimale ko ko moom moom ci boppam mu yore gambu beneen xeetu leket rek. xam nga leket lu ko wuuteeg mbuus leket lawtan la. Mm-hmm. Mm-hmm. day law fruit la day law. Mm-hmm. lawtan la te jigéen buy say si dañoo bëgg waaye famille bi law. dëgg la la ma waxoon rek. dëgg la de ba pare ba pare dafay ëmb sutura aussi. dafay ëmb sutura moom lañ daan duggee. dëgg la waaye jéegu mbuus baaxul. waaw mais waaye leket fu mu jógee. cam yor mbuus rek dem ba am leket ndax ndax si ko defar leket ndax si ko defar leket. ci garab la jóge yàlla mhm. ñu watt ko. Mhm. waaye bàyyil xel ci lenn. Mhm. doom la bu ne ñum ñu xaaj ko ci digg bi. ndeysaan. kon moom na jàpp ne mooy genn wàllu leket gi. layti mooy genn wàllu leket gi waaye genn wàll googu boo koy wax ci tubaab ci wolof noo koy waxee xarit. kon nag defal xuja defal lay ci yaay amatuma papa sama lépp <laughs> mooy sama lépp léegi soxlaatu xarit soxlaatuma dara moom it soxlaatul sama yaay daal samay waaju nañ toog fa ñu toog di ma ñaanal soobe yàlla bu soobe yàlla. askanu Sénégal yëpp tamit di leen ñaanal. ñaanal waaye nañ ko ñaanal. nañ ah, ma daaneel eh, waaw pare koddu doom nañuy gën a góorgóorlu ci seen waajur yi mm-hmm. am na ci solo torop torop torop torop dina tax bunt boo fëgg boo defee li war ci ñoom bunt boo fëgg yàlla yombal la lépp moo tax nga am jëkkëru njëkkante docteur non non docteur loolu loolu moom loolu moom moom moom da dal ndax xam naa ne ñeen ñeent juróom ñi ma doon génnal. ñaan waajur yee ko jàppale. ba moom moom moom moom chance bi moo docteur wax na ko mais loolu damaa bëgg ñu gën koo leeral ndax lu ma gëm la. waaw dinañ ko leeral man loolu lu ma gëm la gëm naa ne tey choix bi ma porté ci moom coono gam sonnal waajuram tamit tax na yàlla may ko ndam ci loolu. ñaar rek ko koy mhm. képp ku fi jóg di wuti jabar dugg ci biir kër gi fekk ko muy saaga baayam doo ko takk. dëgg gu wér. mbaa muy tontu ndeyam. képp ku góor ne bëgg naa la. nga dem di ko nuy ji fekk muy duma ndayam doo nangu mu takk la. déedéet. léegi tonton Mass euh, ñu ñëw ba tey rek ci signification yi ñu gis topp bi. waaw nga baal ma dinaa topp bi une seconde mais dafa am lu ma war loo xam ne bu ñu ko fàttee. musiba ayca ayca layti ki guddi lañ la ko jox. waaw loolu tamit am na ci solo. mandarga googu guddi sutura la guddi. yemut ci guddi ñu muur ko jox la ko. Mm-hmm. ci sutura ba tey. kon lu mu la def muural. te nëbb mbalaanum sutura mooy mbalaan mii boo déggee wolof naan yàlla nañu yàlla yiir mbalaanum sutura mooy mbalaan mii sëy boo ko dindi lépp ne fàng bu lépp ne fàng lu fanaan ci néeg bi yendu ci mbedd mi très loolu moom moo tax symbolique bi am solo guddi bi guddi gi mhm. ndax tàkkusaan lañ la ko may waaye guddi lañ la koy jox bu ñu julee gisaguma ku ñu muur bëccëg de saalum ga nga xam ne dañ koy def dañ lay dëj bëccëg dañ lay dëj bëccëg fekkee naa sëy 93 Koungheul kër gi ma jëlool dañoo dëj xale bi bëccëg ma jàngale ba wàcc fekk ñu dëj ko ma jàngale ji ngoon ba wàcc dem entraînement ba ñëw ñu dëj ko xaaji guddi lañ ko muur yóbbu ko mais bëccëg bi lañ ko bëccëg bi lañ ko waaye muuru bëccëg moom amul di def ay ñaan di mhm. def ay ñaan di way muy dégg séentu leen ko doom yaay séentu leen ko lingeer a ngi mhm. mu xam ne c'est une princesse même way yi ñu dégg fii sax bul dóor euh, bul saaga voilà ñoom sax dañ koo dañ ko dañ koo tubaabeel ne jamaa noir lañ la jox mhm. ndax la waykat ba way waaye dañ naan ne bul dóor bul saaga lingeer lañ la indil macha allah lingeer xujja kon waaw kon nag topp mi nga wax mhm. euh, buy dem dafa am ñu koy topp mhm. ndax nag sevrage brutal baaxul gone sax buy nàmp ci ween duñ xëy rek na ko baalu ween wi kii màggee ci ab koñ madame Diallo yaroo fa ànd ki nit ba psychologiquement mu miin ñooña ba am ay repère waaye dul xëy suba rek nag na ko na ko bàyyil ñëpp mhm. buy dem kenn ku ne ci xarit ya da ngay jël ab kaas kii jël souvenir ñu jox ko yoo xam ne bu demee da koy teg ci néegam bu ko xoolee xelam dem ci xarit ba ko ko jox dëgg la léegi nag doomu bàyyam ànd ak moom ab tëggam ànd ak moom bi salon amagut mhm. sa tëgg moo lay létt nga maaseek moom di déyoog moom mu xam si lépp nga xam léppam booy dem mu ànd ak yow tëgg yi yàlla daf leen a mayoon teraanga yi weñ ak xam-xamu weñ bu àggee dana la léemu bu àggee dana la ñaanal bu ko defee nag sa doomu baay bi nga xam ne moom nga àndal ñu muuraale ko bu ngeen di dugg ci mhm. biir kër gi mhm. nga xam ne dañ leen di xaxar waaw coow la ci bunt kër gi sama mag Amadou Matar Thiam bi moo koy jàngal daf ne ma coow loolu dañuy wan jigéen ji ne ko sëy coow rek la waaye nag coow li terewulaa dugg ci kër gi mm, kon mu muñal coow li ci biir waaw ndegam yow mbëkk nga coow li ci bunt bi dugg coow li ci biir bu mu la génnee très bien très bien dara du ci hasard dara du dara du ci hasard léegi nag euh, euh, euh, tonton Mass ñu ñëw gis ne njëkk bi moo ko teersu gis nañ jàpp bi gis laataa loolu dugub bi dugub bi ak gerte bi ak ak ceeb bi loolu yan mandarga la am mandarga bi mooy joxin bi ngay xool booy xool dañ ko sotti ci kaw sër bi jëlee ko ci sër sotti ko ci layu bi mooy doonal ki nga xam ne dépence bu ñëw bu ko jéem a téye bàyyil mu ruus ba àgg ci ndab li bul ngott bul ngott te dépense bu ko téye dañ la koy jox waaye day jaar ci yow rek wàcc <laughs> non maa juumut ci li ma tànn la jox waxoon ko lun la jox togg gi dugub lan la jox uh-huh. dugub nuñ koy bayee dugub kenn xaar ba taw ñu ji ko dugub dañ koy farasu dañ nan dana taw semaine bi ñu jiko mu nëb waye bu nëbee bu tawé dugub ñew waye ben dugub bu né bu foccee mhm. dana jur junniy dugub mhm. tay suñu borom man la def dé ñu bolé ko ak ciép ciép jamono ko indi mhm. tubaab bi indi ko mu dab ñu waaw mais ciép du culture vivrière culture commerciale la d'accord waye tay dafa dem ba structurer suñu aduna mu war la suñu intelligence communauté communauté buy adapté wu la. ak gerte gi. gerte benn doom boo ko suulee. boo buddee gooñu gerte gune ne. day law. Mhm. ay moom ay doom lay jur gerte. wallaay wallaay wallaay. dugub ay pepp lay jur. Mhm. waaye gerte ay doom lay jur. Mhm. kii lan lañ bëgg mu am ko ci kër gi. macha allah yàlla na ko yàlla def yàlla bu yaakaar dañoo bëgg mu yàgg ci kër gi focc na dugub. waaye dañoo bëgg mu am njariñ nag doomu gerte. bu loolu weesoo tamit tonton Mass ba tey rek ci wàllu aada ji. gis nañ jëkënte lal bi je sais pas ndax lolu ci cosaan la bok wala ci parce que damay faral di dégg né ki ñëk tek euh, ki ñëk tok ci lal bi moy yilif wala ki ñëk lek bi moy yilif. wa lolu wax ju yaq la xam nga lu ki bakkar ndayam ba fa ndayam ba fa baayam kooku nangu ñu yilif ko way bu jigen di genn kër gi lu muy ñaan. <laughs> kilifa dedet jigen buy genn bu bëggee bayyi sey bi lu muy ñaan baat lay ñaan. président Macky Sall lu ko fal. bat waye ku joxe sa bat amato dara. kon kay xecio kilifté fessu na kérok ban al khairi léegi léegi laax bi. laax bi mom lu muy gal wala wala. laax bi sax xeyna ni ngeen ko defé mom lañ koy defé léegi waye amna luñ ci daan yok ku gor ke day tib sax yàbbi jox ku jigen ki ku lek ku jigen ki lek ku jigen ki tib sax yàbbi jox ko ku gor ki. ñu ne nag yow ki nga xam ne lekk na laax sa jabar lekk na laax yàbbi jox la nga lekk waaye man nga ko xeebati sa jëkkër yàbbi laax jox la nga lekk mën nga koo seexlooti dañoo bëgg kersa ga dañ bis nag bi keroog <laughs> léegi nag buy dugg ñu njëkkante lal bi waaye nag euh, ca cosaan daam na ñoo xam ne dañ daan def booy dugg xarit yi nga fay fekk moom booy dugg jëkkër ji day daw génn ngeen ngeen ngeen tuñum loo loolu la ñuy wax tuñum loo Mhm. tuñum lo ci wolof moy ki di genn ki di dugg. boobu ma ngi koy doog deg dégg. moy tuñum lo buñu tuñum lo nak fekk na xarit layti ci biir neeg bi luñ koy wax ne ko ki genn du sa jëkkër ñi tok ñolay lay ci sey bi. xaritu jëkkër yi. waaw kay parce que ñoo magandok mom ñoo bokk ak mom leul parce que layti du layti du kese du moom dong. du mom rek donc nak symbolique yoyu mom mo am importance. te loolu lay saluer ci qualité émission bi. c'est bien que ngeen tudd RTS 2. Mhm. parce que léegi kër gi amna ñaari tank mhm. te benn tank doxine bi du rafet mhm. bo amé ñaari tank tànk sa dox di lèr dëgg la moo c'est bien symboliquement que li amé fi parce que ci mission de service public la bok mhm. li nga xamné nak mom lay terminer Adja soukayna c'est important lu am solo nga wax ñu jox la ñoom xëpp la ko nga bàyyi mu wacc lolu ku ko nangu doo téye dépense doo wàññi dépense dugub je xamoo fu mu jëm fu mu jëm ci ab layu layu amut kubéer waaye ku mas a dem ci toolu dugub mbaa nga dem ci toolu gerte di nga xam ne layu moom la ñuy beesee mhm. layu mooy séparé li ñuy li jëm ci biiru nit ak li jëm ci jur gi mhm. waaye kooku buñ la ko joxe mooy fexeel ba nit ñi nite mhm. waaye fexeel ba jur gi lekk macha allah jërëjëf xam-xam bi wér na leer na jërëjëf tonton ci générosité bi ndaxte xam nga ñun sunu jàng dafa xawuta mat

daf ma doon wax ne moom yenn saa yi dafay affaire fase dafay àtte affaire parce que raison yi yi mu fii gis daf koy daf koy yéem ba ma ne que ne man su ma amee jot dinaa analyser ay ay ay décision yu mhm. bëri mhm. comprendre lan mm. mais su ma dégloo Massamba li bëgg wax il faut que ku mel ni yow euh, di utiliser xam-xamam mhm. suñu aada suñu cosaan bi nga xam mhm. pour que ngay waar nit ñi mhm. damay dama choisir eh, délibérément mo waar ma tay de xam naa bu baax luy waar mais dama bëgg ngay waar nit ñi si wàllu néegu sëy waaw muy borom sëy yu màgget yi ak borom sëy yu parce que diago bu ak ni ci waaj duggu tam ñu préparé ak préparation. Mhm. Mhm. parce que su may xool suñu natango catholique ñom bala ngay dugg si néegu sey prêtre bi dina la exiger le minimum six mois de préparation au mariage. expliquer la lan mooy sëy pendant six mois chaque semaine yow wala chaque mois xawma ban fréquence la mais minimum juróom-benni weer di nga ñëw ñu lay jàngal lan mooy sëy. Mhm. te yaakaar naa ne ñun war nañu gëstu jéem dox ay jéego ci wàllu préparer di ñi ci néegu sëy loolu daal laa bëggoon euh, daanalee et je pense vraiment que vous avez toutes les qualités pour def loolu na nga si gëstu bu baax euh, Codou na ngeen si jàpp waaw mais lii sujet bu am solo la waaw dinañ ci dox émission bi dox ci xam-xam defe naa man aussi li ma li ma bëgg a yokk foofu ci mhm. li fi génn lépp ci mhm. aada ak cosaan mhm. Boy, xool docteur wax ba yag ma gis ci sey symbole ñu amul du hasard amna lutax mais fenn nous tek sama loxo moy man ak samay morom valeur yi ñun dañ ko xamatul perte valeur mm-hmm. donc nous dafa baax mm-hmm. ñuy préparer jeunesse bi di leen wax ne lii nous ñun waruñoo jéggaane ñun ñun am loo xam ne buñ ci sukkandikoo donc fi ñu bëgg a jëm mun nañ fa dem. réew mi nag am na li waykat bi waxoon seetlu nañ seetlu nañ yàqu-yàqu réew mi ci ndaw yi ci fukki at ba ci mag mu jubul kon bul àggagum ci mag mais préparel ndaw mi nga xamante ni ne mm-hmm. moom moo moom moo war a jëm nekk mag donc valeur yi dafa am solo mm-hmm. valeurs yi ñu koy ñu ñu ñuy préparé ñun ñu xam suñuy valeur te nangu koo jàpp nag mm-hmm. ndax professeur lu mu wax wax wax wax ñu dégg ko mu neex ci bees bees bi te jëfewuñ ko tamit du am solo. du am solo valeur yooyu daal vraiment war nañ koo delloo si. du am solo pour sama euh. classe gi mel waaye ñun moom xaw ma ñan waaye ñun. liñ fi dégg nii. Euh. liñ fi dégg nii danañ ko jëfee. jëfee leen ko jëfee ba ngeen ah, am dinaa ngi leen di seetaan. waaw ah, xuja looy looy jeexalee ñu ngi ci cëppaandawu émission bi. man li may jeexale mooy xale yi nañu jege parents yi nañuy jege sunu yaay yi ak sunu papa yi di waxtaan ak ñoom. nee nañ nag ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa boroom mhm. te man li ñu fi tonton Massamba wax lépp lépp day law te luy law lu nekk amul yamukaay kon nañu dellu si waat kuy dem nag taxamoo fi ngay jëm dangay dellu fi nga jóge woon mënuñu mhm. li mënu fi jóge parce que suñu culture la mënuñu mhm. ko bàyyi lu ñu roy roy tubaab yi nañu dellu si waat fi dellu si di def li ñu moom loolu laay terminé di len remercier bu baax. <laughs> jerejeuf ñuy remercier nak bu baaxa baax ki nga xam mom modi professeur Massamba gi nga xam xam-xamam dafa match jëm ci walu adak ciosan ak lepp lu ko wër té mu yewenti lool professeur maa ngi lay remercier bu baaxa baax ci sa ñew fi ci émission Cœur Leyti. waaw man ma leen war gërëm ndax xam nga euh jamono dafa jot télé yi euh may ñu fu nu waxé li nu bëgg wax mm-hmm. euh vulgarisation télé mo koy def. Mm-hmm. je pense que tey ñun ñoo leen war a gërëm euh, li sama jigéen wax dégg naa ko dinañ ci gën a góorgóorlu. Mhm. Mm, dolli ci liñ mënoon. Euh, mais jàpp naa ne mm, li xaar mbay ma jaaga waxoon xale yu ku leen juróom yërëm leen ku leen juróon yërëm leen. Mhm. dañ leen a jàngalul seen bopp. Euh, ndax dañuy juddu école maternelle ñu yóbbu la école maternelle nga pare ñu yóbbu la école française mhm. yooyu yëpp baax na ci xam-xamu àdduna. waaye nag comme lël amatut mënatuñoo tëj góor ñi di leen jàngal. nañu inspiré wu ci modèle yi mu wax nii. Mhm. Euh, préparé sëy yi ndax nag dëkk bu sëyee yàqu. Mhm. askan wa yàqu na te bu askan wa yàqoo mhm. moom émergence ak dara mënu fee am jikko yi ñooy yàqu. kër yi bu nu tasee xale yi bëri ci mbedd mu bu ci mbedd yi bëri ci kaso yi. jaabante yoonu tribunal nag. jaabante sa néeg doom ak sa néegu ko gën wallaay wallaay wallaay wallaay jërëjëf euh, Soukeyna Ndaw jàlloo moom itamit saa suñ ko owee mu teew moom nag di juriste bokk fële ci association des femmes juristes euh, mbirum sëy soxal ko lool mu ciy dox ay jéegu ñu xam ko ñu bañ ko xam ñu yëg ko ñu bañ ko yëg di la ci gërëm bu baax a baax ndax bari na luñ lay indil ay kaa di ko euh, toppatoo te laajoo ci dërëm jërëjëf bu baax a baax a baax a baax Soukeyna Ndaw jàlloo ci sa teewaay fii ci émission Kër Leyti jërëjëf Codou man soo ma wooyee damay parce que toujours euh, yow doo def émission yu ñàkk solo. jërëjëf te comme que nag euh, adina bi temps amatul jot amatul. Mhm. donc euh, magum jëma dal soy jóg. Mhm. da ngay jóg pour lu am fayda. <laughs> donc franchement man ma lay remercier. parce que surtout particulièrement tey. Mhm. Euh, amena un éclairage nouveau mhm. sur des aspects culturels du mariage yoo xam ne mhm. franchement rëccoon na ma. Mhm. jërëjëfati ma professeur Massa vraiment <laughs> merci. en tout cas nous leen di remercier bu baax a remercier encore une fois euh, Villa euh, Racine du hôtel du restaurant euh, du dalal Leiti ak Sornam ak ñun ñi saa émission Cœur Leiti di remercier notre sunu beneen partenaire qui ma habillé di Evatra Bamana couture euh, sunu euh, mbokk bobu animatrice Nek fele TFM diko nuyu walé bu nga donc écritel bi dina jaar ci remercier euh, surtout équipe technique bi nga xamné euh, mois prochain dina ñëw ci leneen Leyti ak soxnam fan lañuy mujjé di gërëm nak kon euh, équipe bobu macha bu RTS 2 lu jëm ci wàllu euh, direction bi équipe technique bi réalisation montage caméra mbe maquilleuse yi wuñu kenn ak protocole bi Evelyne Ndiaye un grand merci à tous et à toutes et à très très très bientôt sur la RTS 2 toujours plus proche de vous à cœur l'été